salaamaaleykum rahmatulah téléspectateur Safina TV mbokk internet yi ñu leen di nuyu bu baax di leen ziar tey seen émission actualité def doxantu ñëw ba Caaroy sur Mer seet kàngam bu mag si wàllu politik seet si koo xamante ne ku ñëpp xam la ku ñëpp ràññee la mu nekk ku màgg lool te ku mag tamit euh, kooku mooy kan kooku mooy El Hadji Malick Konté nekkoon euh, maire bu Pikine Est nekk président mouvement Sauver le te moom lañ seet si woon si suñu émission laata ñuy tàmbali rek dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ak euh, mbokk internetu Safina TV président asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi leen di sant di leen nuy di nuyu mbokk internet Safina bi di leen ñaan yàlla seen affaire bi ba xam ne nekk télévision bu mag. parce que nag ay cadre ñoo ko yor xale yoo xam ne ëllëg tey sax war vraiment war nañ toog sax ci euh, télévision yi ay seen TV ay Walfadjri parce que ñoom it c'est c'est le moment ay xel lañu war ñu war a mën a wane la ñu am ci xam-xam ak lu ñu a def donc may ñaan yàlla ouverture ci télévision yëpp ak ñun ñëpp alors yàlla jàppale ñu jàppale surtout réewum Sénégal mu nekk réewum jàmm yàlla may ñu ay politiciens yoo xam ni vraiment li ñuy gëm mooy askan wi l'avenir de la jeunesse l'espoir de la jeunesse muy la jeunesse alors xam ni xaalisu askan wi euh, xaalisu ñëpp la donc kenn waru ko pàccoo bàyyi ñeen ñi. Ah, macha allah président euh, nga nekkoon maire Pikine Est laata ñuy ñëw si wàllu indi tour président bi ñu xamoon si monsieur le maire tey nga nekkoon Pikine doon dund nekkoon monsieur le maire naka nga doon dundee ak askanu Pikine. waaw askanu Pikine nekk naa maire pendant ans alors euh, def naa fa li ma mën. jàppale naa ASC yi jàppale naa imam yi alors j'avais nag une équipe une très bonne équipe euh, vraiment ñoom Mbagnika ñoom dégool vraiment sama adjoint yi ñu fa nekkoon ñëpp président de commission yi vraiment def nañ fa ay réalisation yu dul jeex xam nga nag fi nga juddoo màggee fa ñu ngéntee la fa nga jàng fa école ci moom école bu jàkkaarlu seen kër nga màgg nekk fa maire quinze ans nekkaat encore adjoint maire de la ville nekk membre association de maire du Sénégal nekk encore Euh, conseil régional de Dakar ak ñoom Madi Gakou nga jóge fa encore nekkoon euh, le conseil de Mame Elisabeth Diouf yooyu yëpp yàlla daf lay bay teraanga yoo xam ne ñu ngi ci tey nag euh, vraiment loolu moom def nañu ay réalisation ci Pikine et puis ñun it li ñu ñu soxla rek bi ñu xale ba tey mooy jàppale suñu gox dimbali suñu gox waaye fi nga dem ba am fa vraiment ñetti manda xam nga ni kooku vraiment sàppiwul ëpp yàlla nag mooy dogal te di dogal ci mbir mi mooy natt la woon yoo xam ni amoon naa ko alors sama ginnaaw la ñu préparé lépp donc yàlla baax na. yàlla baax na président euh, en tant que nga nekkoon maire Pikine quel est le rôle d'un maire maire naka la mën a comporter ak yow naka nga doon dundee Pikine ak waa Pikine nan nga doon yan projet lan lan nga fa def tey jii loo xam ne mën nga ñu koo wax. bon xam nga maire toujours da ngay nekk il faut être humble et être à l'écoute de la population parce que nag le conseil municipal bu ñu rek population bi ñoom ñooy wax seen xalaat nga seet yow ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu sport. ci wàllu empli emploi maanaam des jeunes ay contrat ci wàllu infrastructure yi fa nekk ak yooyu yëpp ñun defoo nañ fa ay tali defoon nañ fa ay égout actuellement euh, euh, euh, defaraat nañ fa encore benn maternité à l'époque ñun la woon ñu fa njëkkee nekk ñoo fa réalisé encore maison de la femme bi maison des jeunes bi aussi ñoo ko réalisé ak xule yàlla na ko yaa dem tuyee ñu mu dem en verse indi ko temps yooyu bi ñu demee en verse amoon nañ fa eh, eh, benn ay ay partenaire bon man maa defoon programme bi taxi bi réussir ko programme taxi bi daan nañ jox cent millions par an daanaa jox ASC yi un million par an jigéen ñi kon mais de la famille daan jox vingt et un millions ah, ah, ah, artisans yi fa nekkee daan nañ jox onze millions retraités daan nañ ñu def jënd ay ceeb yooyu di ko jëndaat yooyu yëpp amoon na fa bon bi ñu préparé nag pour préparer nag pour nga xam ne bu ñu demaatee dañu jox un milliard alors ci le régime Abdoulaye Wade ñoo gagné alors ñu daanu après nag ci laa ñëwaatee encore gagné waat Abdoulaye Wade jëlaat maire bi. mais askan wi boo nee maire dëkk bi maire dëkk bi dañ naan ñoom xamuñu maire bi wala ba duñ ko gis par exemple xaalis bi nga xam ne yaa ngi ko wax fii ne doon nga ko jox jeunes yi doon ko dimbali retraités yi ak ASC yi comme ni nga ko waxee souvent da ngay gis euh, maire yi nga wax leen ñu ne ñun gisuñu suñu maire gox wala suñu gox bi di suñu gox bi laa nañ ko daan réclamer lan moo waral loolu. waaw xam nga am yoo xam ne xamuñu maire ñu population ndax sa askan da nga ko war tiitaroo da nga war dem nemmeeku feebar da nga war dem di seet conseil municipal aussi dañoo war a dimbali le maire parce que conseil municipal bu nekk quartier bañ la fal yaa fa représenté député ba yaa war dem xool koñ ba ndax courant manqué na fa ndax am na ku feebar ndax am na ku manqué kaye ndax am na jeune war a dimbali ndax am na ku ñor taxaw nga ñu wax ko le maire ñu ko ci budget bi def ko mais le maire aussi war nay taxaw di saafantoog population parce que maire aussi boo defat budget wax ñu ne say conseil ngeen tëju de da war a bàyyi population bi ñooy imam yi ASC yi santé ak yëpp éducation ñëpp ñu mettre yëpp ñëw ku nekk wax li mu nga ko ci ëllëg nag bu ko gisul ci la xam ne réalisation yi na wax dëgg yàlla ñu mën la maire waaye nag aussi état bi encore accompagné woon maire yi parce que tey jii da nga def réalisation nga ne ñi nga fi ñuy def ay budget ay un milliard mais boo demee ba ba fin d'année du ñu mën réaliser cinquante millions parce que boo xoolee li ñu wax ak deux trois de la amul baaxul parce que boo demee France nekk ca mairie ba ah, ak entreprise ba yëpp mairie ba la ñuy fay salaire bi yëpp mairie la fay mais fii état mooy jël yëpp ak impôts yeeg yëpp donc les aussi état bi dafa leen di booleeg waa ADM rek ñoo defar ay tali ay ku kenn xamul mais en réalité budget bi nga xam ne moom nga war liggéey patente yi ñu fa war a fay ak xaaj bu war a ak marché yi amuloo yu yenn marché yu mag yi par exemple man moo yore syndicat syndicat yi boo doon xool daan génne soixante-dix mille francs par jour alors nga bëgg ci fay employé bëgg def ay réalisation mbënd meeg kaye yeeg mbër yeeg ASC yeeg tout dafay metti ak population bi ak secours yi ak ñi ngay dimbal tabaski tam xarit ak yëpp usi mu ngi ci mais xam nga Sénégal ñun xamuñu si loolu lu ci xamuñu si lu ci bari ci loolu parce que pour ñun bu ñu fayee patente fay droit yi nga xamante ne nekk nekk ci dëkk bi yow lépp lu la droit wax na da koy def te lépp buñ ko dajalee dañ ñaan ca mairie ba la jëm mhm. kon nag yéen maire yi est-ce que du yéen a waroon a wàcc si tene yéen waroon tamit lépp loo xamante ne yéen ko jëlee si askan wi du delloowaat ka si askan wi waaw xam nga mooy li mu la sànq euh, dafa ay maire yoo xam ni mënuñu liggéey seen bopp mën fa bàyyi tey boo xoolee maire yu bari fii dañuy jaay suuf te suuf si domaine national la comment on wax yi du ñu diggéel askan wi c'est comme l'État aussi l'État y a des miss yoo xam ne si su la wax na ko y a des miss yu détourné ay milliards jaaykat drogue yi ci ñoom la donc mu ne encore góor jigéen ci ñoom la immeuble yu poussé yi ñoom la wax ne fi teer bi wax na fi euh, building bi détournement yi fa am yëpp xam nga yooyu bu fekkee ne moo nga détournement baa ngi jóge ci kaw nga xool impôt et domaine dafa war a génn nga xool douane muy poor ak aéroport dafa war a génn nga xool euh, exemple euh, société yi entreprise yi institution yëpp bu fekkoon ne ak ba ci ambassade yi bu fekkoon ne ku nekk lañ lay dénk yaa ngi koy indi ci kees compte conviable sénégalais yi kon kenn du mer mais tey boo xoolee l' agent des comptes conviables sénégalais ñan ñoo koy jël benn groupe d' individu loolu ci ñaari wax ne golo du bay baa bi di dundee ñoom ñoo jël ñaqu góor ñi ak ñaqu baadoolo yi ak seen der ak seen yàpp yaram di ko siimee seen cere koo ci gis fu mu ne actuellement nag ngay nekkee ministre même bu fekkee salaire bi deux deux millions cinq cent mille trois millions xam nga ne mënoo ci am këru këru six cent millions oto yu rafet say doom nekk à l'aise ñu dul xoolal tey depuis Ablaye Wade Ablaye jàpp nañu ko ci chantier de Cessy Balde épinglé nañu ko Awa Ndiaye Kudu Fada Farba Senghor Karim 138 milliards Sindiali 52 milliards directeur l'Algérie ak ñi fa nekkoon ñëpp dañu épinglé des milliards depuis l'arrivée des loolu moo fi amoon autant de Diouf wala autant de Senghor loolu kenn ñe moo koon def bon Macky ñëw aussi yaa Prodac COUD ak yi fi am yëpp tey nit ki buñ la épinglé da nga war a démissionner ba pare ñu càmbar la ba bàyyi justice bi ba ñu xool la buñ la fuy nee nga set ñu soog la mais tey dangay ngay taxat kumba am ndey moo fi am ak kumba amul ndey bàcc am bàyyi ak bàcc amul bàyyi yaa ngi de ak dynastie familiale li ko yàq mooy Karim Wade lan lañ ko tëj yoon affaire dynastie familiale tey boo xoolee ci ci ci nguuru Macky Sall daf ci am ay goro ay rak ay xarit ay cousin loolu day tax Sénégal yi seen xel tey parce que am na ne ñoo leen dàq jàng. mais donc donc boo faloo da nga a seet la population l'intérêt de la population mais tey sa sa mbokk yooyu am na ñoon gën a compétent dàq leen jàng ëpp leen xam-xam nekk bitim réew nekk fii pourquoi mënuñ jël loolu. la grande coalition bi nga xam ne ñoo entré Macky Sall exemple comme mel na ñoom maître Ousmane Seye ak ñooñu y a des intellectuels là mais duñ leen jël tey boo xalaatee gouvernement élargi ban gouvernement il sait que dañ ko épinglé woon ay chantier de Thiès ba ñëpp protocole de Rebeuss kañ la fi indiwaat léegi ban changement mu fi am boo xoolee depuis 1960 ba léegi les mêmes pipes les mêmes tabac les mêmes pots pire ñoo fi nekk marche vétéran la rek ku sonn sàcc ba doyal ñu la toogal nga taxaw tey xool euh, euh, euh, ci ci ci réunion Macky Sall y a 45 sur la table du procureur de la République du Sénégal ay COUD yaa ngi may dégg ay Prodac ak ñeneen ñu fi ñu fi épinglé si su wax na fi affaire ñebe ak bon yeeg yëpp yaa xam mbay weeraat na fi bon Euh, Moustapha Diakhaté werat nañ fi mais ñoom ñëpp boo xoolee ay dealer la ñu xam nga lu ñu nekk ay dealer c'est parce que ñoom ba ñu nekk ci kanamu nguur gi Macky Sall joxo leen poste yu baax yu jotee yi dañ daan tagg Macky di ko dugal ci tooxi duna tey ñoom ñëpp gis ku ci Macky wàccee yaa ngi xatte yaa ngi xuloo moo tax je dirais que ni nit ñi nañu gore nit bu la falee pendant un an ou deux ans wala trois ans wala huit ans bu la wàccee war nga am ngoru delluwaat même bu doon kuli nga kuleeg moom loolu mooy la dignité loolu mooy valeur bien vrai que nag y a des détournements abusifs yu Sénégal yi nekkul parce que tey moo la ko tey la santé amul ku feebar mënoo faju commencé ko Dakar Tëngéej Pikine kon ñu nekk kon ñu nekk Sénégal des refondé fa lañ jëm sécurité amatul ñu ngi rey ñu ngi violé ñu ngi agressé ñu ngi sàcc ay jur ñu ngi téenteeg suñu police suñu gendarme drogue baa ngi échappé guddi ba cëg ci port bi ñu koy wax un bu ko sali ak des hommes célèbres def ay faux billets des ñu bàyyi leen te ñu jàpp ay xale yoo xam ni un million deux millions lañ fa lañ ko def ñu ngi ci kaso pendant nga jóge fa tey pêche bi licence de pêche ñu ngi koy jox ay chinois ak ay japonais ak ay tubaab te ñun ñu am suñu entreprise de pêche est-ce que ñooñu amuñu ay géej boo xoolee Sotiba Simpafric Icotaf yëpp tëj il faut que ñu dut sonat pour consommer consommer sénégalais bi ñu wax bi ñoom ñoo koy njëkkee parce que tey bataa bi ñu koy bontee ji bataa bi nekk tëngëj jël ay daal yu jóge Chine ay machines yu jóge Chine andi ko jox ko waa ngaay meexee ak ñi fi dañ defar ay daal ñu koy sol mbéy mi bu ñu bon ay hectare baddi ko jox ko xale yi ñuy béy ñu leen ciy fay ay salaire deux cent cinquante mille francs par mois xale yi dinañ béy ak ay ak ay ingénieurs yi fi nekk tu as bien compris donc tey xale yi boo xoolee seen bourse baaxul am na xale yoo xam ne seen bourse yi ci seen papa yi dund am na yoo xam mun tu ñoo fay mun mënut ñoo fay ndox mënut ñoo dundal seen yaay mënut ñoo dundal seen papp yaa ngi may dégg tourisme bi baaxul ci yaa ngi may dégg alors napp gi baaxul mbéy mi aussi duñ ko consommer ni mu waree xam nga ba sucre bi tey ñu ngi importe léegi ay faute moo fi dugg te faute ci réew dafay daaneel am réew donc me ñi balaa tey jii bu tëjee tey ko rey société yi fi nekk te jii bu ñu ubboon Icotaf ak Sotiba defar suñuy tissu bopp suñuy logo su bopp suñuy basin bopp ak suñu daal bopp mais ñun ñoo koy njëkk consommé sol ko en ce moment def création d' emploi tous les ñaata xo xoola xale yi tey jii ñaata xale ñoo jàng ba yëy kayit am ay master 2 master 3 ñu ngi marché yi di jaay ay soble ay kaan yi dem ba béjaaw ba ménopause mënuñu am emploi c' parce que état bu fekkee ne xam ne ñoom am na ñoo xam dañuy ñu war financé ay boulangerie yu dëgg pêche transport créé leen ay société leba leen xaalis ñu liggéey defal leen ay licence de pêche yaa ngi dégg ubbiwaat ay société jox leen ko xale yi mën liggéeyaat mën a ref mën a mën a dimbalaat Sénégal yi mais loolu amul kumba am ndey kumba am leen ñoom it ñuy détourné xaalis bi di bokk ne di bokkaat baay boo xoolee tey ki la waxoon tey ne bi ñuy fal Macky Sall du 22 personnes moo dee woon ba ci Mamadou Diop defoon fépp ay ay ay dealer dañuy détourné Sénégal tey boo xalaatee c'est la même scénario bi ñoo ñëwaat ci gouvernement bu Macky Sall donc ñoom dañuy nax ñoo dàq théâtre daara Kocc àndaat nañu juboo nañu détu nañu xaalis bi duñu jàpp kenn duñu convoqué kenn suñu paree àndaat encore bokkaat benn gouvernement. mais monsieur le maire yow bi nga faloo nekkoon ci ci kii bi yaakaar naa ne maire bu ne état bu la falee teg la ci ville. pour que waa ville boobu seen problème nga joytu ko par exemple affaire xale yi ñu jàng am ay licence te ñu liggéey mm-hmm. yéen bi ngeen fi nekkee yéen xam ngeen bëgg-bëgg askam wi te jege ngeen état mm-hmm. lan tax doxoo leen loolu ba ku nekk sa ville mën a am au moins looleen leen mën a defaral. waaw xam nga maire yi amul doole wax naa la ko. mais am ngeen accès si gouvernement bi quand même. kaay wax la gouvernement bi wax naa leen ko ba sonn boo demee YouTube t'appelles les sorties de Mali Conté te wax ko ba tey dem naa ba France bi ma nekkee maire. Espagne Italie j'ai trouvé là-bas des yoo xam ni mëntu ñoo dellu te xam li ñoo réclamé jamono jooju bu ñu leen financé huit millions à neuf millions ñu dellu si ay projet parce que foofu foog nga fay courant chauffage foog nga fay ndox am na ñoo xam ne ay clochard lañ fa boo xoolee immigré yi depuis ba léegi ñaati milliards lañ fi dugal depuis Senghor ba léegi ñaati milliards moo dugg ci état bi li Abdou Diouf lépp li li Abdoulaye est-ce que xool nañ ci la jeunesse l'avenir demain moo tax demain ils vont être jugés devant la table de l'histoire avec cette jeunesse là et ay gàcce la ñuy ak torox tàng sëgg parce que tey koo ci gis ñoom ñoo ko wax Pape Alé wax na ko guddeeg ba jëkk xoolal fii keroog benn douanier bu nekkoon euh, euh, euh, cité Djily Mbaye la lañ sàcc ci këram 450 millions kenn global fan 100 millions ñëpp wax nañ ko fi mais loolu fa lañ koy jëlee su fekkee ni xam nga état du du ci gouvernement bi rek ñoo sàcc de mais bu fekkee impôt circulation bi entreprise yi sociétés yi képp fu xaalis di génne ba ci ambassade yi bu fekkee ñu koy ci dans le compte des comptes viables sénégalais ku nekk ñu xam ne yow da nga war a am dëgg la même financement yi ñu def ak Moustapha Diop ku bokkul après kenn du la financé mais pour lan loolu parce que sénégalais aussi ils ont été naïfs depuis l'arrivée des pauvres euh, des libéraux ngay dégg ay milliards yu dul jeex tey Karim Wade nga ne Abdoulaye yaa ngi fàttali élection yi passé ma waxoon su ma naa sama bàmmeel Touba mu dem moom Alpha Condé ak Karim Wade ak Macky Sall ñu Karim moom mooy cheval de Troie bi ñu revenir yaa ngi dégg parce que le Ablaye noonu ne le PS a fait 40 ans le PS va faire 50 ans ana ñoom Souleymane Ndéné boo wax ne man du ma transhumé su ma nee da damay dóor sama bopp bal yaa ngi dégg ani Pape Samb bi la wax ni bu Ablaye waxee ma lakk sama njaboot ma lakk leen ana Farba Senghor bi Ablaye jëloon ba mu tekkul dara man mag moom ñoo taxoon ak Ndiaye Dos bu ngeen koy fàttaliku ñu nga def émission bi euh, place de l'indépendance ne parce que xaalis Sénégal li ci nekk mooy yërëmuñu jeunesse bi boo xool tey jeunesse bu ñu dematee ba braver océan bi di jaay seen bakkan bakkan dafa neex de mais boo toogee sa ndey mënul feebar mënul mënul faju sa feebar mënul faju say sœur dem bay prostitué amuñu nga dem xool leen mënoo yegg mënoo joxe añ mënoo joxe reer mais da ngay da ngay ngay génn pourtant tey jii financement yi ñu leen daan financé ak bitim réew yi ñu daan jox ay ay yoo xam ne mën nañu ko financé ay jeunes ay projet war nañu ko mën def Djibril moo fi indiwoon ay ak ak Mamadou Lamine Doum ñoo fi indi woon station yi ñoo fi indi woon euh, sociétés yi ñoo fi indi woon euh, euh, super yi ñu financé woon boulangerie yi ak ak mu yi pourquoi mënuñ jël Djibril Ngom Mamadou Lamine Moussa Touré ak Famara Ibrahima Sarr ak ñoom Malick Gakou ñu def benn commission di dem di indi xaalis ñu koy financer la jeunesse parce que tey jeunesse boobu su ñu entreprise Sénégal dafay gën a ndax ay milliards mooy roulé ci banque yi du dëgg en ce moment poumon économique bi dafay am oxygène mais salaire lan lay jëriñ nit imagine toi tey nga fay kër gi yaa ko moom boo fayee courant ndox cent mille francs looy dese du neuf cent mille añ ak reer ak ndékk lu baax deux cent cinquante mille looy dese six cent cinquante mille six cent cinquante mille boo fayalee sa doom yi jàng école ku nekk cinquante mille franc nga am quatre gos looy dese quatre cent mille quatre cent léegi boo ci defee ndékki def ci transport jënd ci gasoil may sa jabar may sa yaay may ñi la yaakaar looy dese waaw su fekkee nag amuloo léegi kër ngay luwee fay trois cent mille franc kon léegi lan ngay dese waaw ku fay ku deux cent cinquante mille franc wala fu mu jëm nañu yërëm jeunesse bi gis nga jeunesse bi Abdou Aziz Sy Al Amine waxoon na ni guerre civile mën na fee am te mu ngi xeeñ ndax tey jii kat dañoo ànd ñoom koo dégg mun ne réew mi neex na président ñu jaar ci euh, autour APR 3 heures du matin ne ko lépp nooy na dañu koy nax na dem na xelam dem ci IBK na xelam dem ci Mouhamed El Bachir na xelam dem ci Blaise Compaoré na xelam dem ci Saddam Hussein ak Kadhafi ñooñu ñëpp dañu yaakaar duñu wàcc añte ak ñoom Gbagbo ñun ñi dañ leen jël poste yaa biir te bu ñëwee ñu daaw de faire demal ñaajo demal Pikine demal Dakar demal fu nekk yaa a des de contournement vraiment courant xuy xamaj amul doon demal Abdou fii la amoon Abdoulaye di ne dans trois mois kenn du mën a fay salaire yi mu ngi koy fay yaa ngi dégg stabilise na prix mu ngi jël mais doyul il faut que ñu financer xale yi ëllëg ci bu nekk pour ñu mën a may ay emploi pour mën a am la liberté économique qu'est-ce que c'est la liberté économique mooy nga am soxla faj sa soxla xool yéen jigéen ñi yéen vous les journalistes là xool tey ku siiw yéen a ko siiwal tey ban salaire ngeen am ban rémunération ngeen am on vous exploite te ñi am ñi ñi am télévision yi ñëpp war na loo xam ne ëllëg war ngeen cee a tedd ndax naaj bu ngeen cee feebar tey boo demee suba ngoon nga ñëw ñu ne sa papa daa feebar te mënoo jënd paquet paracétamol cent franc sa du jeex sa doom dafa soj mënoo jënd sax ordonnance euh, mille franc sa xol du jeex demal district léegi même bu ñu jaay garab yi mille franc six mille mille franc am na ñu ko amul fii ku añ doo ku ñu yóbbaal sax mille tey boo demee ci pëlu càkri sow yu guddi taxawal ak borom cere yi bari 9 heures ñu pare jaay dem seen yoon parce que da nga ñëw wàcc jënd 500 francs cere 300 francs même yëngal jox xale yi ñu naan ak sa jabar est-ce que kooku dina la mën a jox vitamine ay bandits de voyous ay truands ay lâches ay voleurs di détourner l'argent des comptes conviables sénégalais di añee coof di reeree yàpp def lu nekk boo xoolee seen oto yi oto sàcc la lal bi lalu sàcc la kër gi këru sàcc la yëre yëre sàcc la seen or jabari or sàcc la lépp luy liggéey alalu sàcc la mais sàcc di nga toog ba sixième sens xam ne yow daal na sàcc yi wub ñaanal leen nag gole yéen a ngi bay rek baa mu nuy dundee gole yi nag fu mu ne mooy doomu aadama yi du ñu ay gole mais dama leen bëgg jox misaal ci gole yi heure bu gole yi jógee ak seen i linjaan jàpp seen njoowaan di ñëw ci dëkk bi benn baa mu dootu fi taxaw lii mooy indi ma lii mooy indi guerre civile bu Abdou Aziz Al Amine lii mooy indi parce que nag ay golo du ñu béy di fay compte di fay courant di fay ndox di fay lépp te yow munoo paj benn soxla sa àdduna jeunesse bi kon ñu jàngee léegi nga dem jàng sa yaay jaay këram jaayay oram nga dem ba nekk yor ay master yow lu nekk ñëw ba ba ngay bijaaw mu ne mën a am sax contrat mais xale yi bëgg sa ñuy def wala ñuy drogué loolu la dañu am souci eh, Macky Sall dañu yaakaar ne bi mu ñëwee il sera le libérateur il sera l'homme bi nga xam ne moom mooy libéré comme ni mooy libéroon Égypte détournement yi moo ko war a arrêté créer des emplois li mu waxoon et de cette jeunesse là jëlaat ay yeneen yu compétents yoo xam dañoo intégré xamuñu marché à gré à gré sàcc xamuñu randal mais ñi fi nekk ñëpp ay dinosaures sàcc woon ñu woon ñëwaat encore ñu épingle leen mais xanaa ni kii bu ñu ko épingle xanaa duñu ko wàcce IGE OFNAC ARMP CENTIF épingle nañu mais tey fan la mujj du ci trois yi déclaration patrimoine bi ñu bi anamu anamu am na ñoo xam ne bi ñuy dugg ci gouvernement bi amuñ ñu suukar màdd ngay dégg ay ministres yu jënd ay gazelle ay ay ay yu jënd ay kër euh, euh, euh, faanoog six cent millions nga koy dégg ay ministres yoo xam ne tey jii ku mel ni Farba Farba Ngom taxaw ne mag Thierno Alassane Sall dóor ñu xaaj bëri ci pétrole bi ay milliards face to face Aïssatou Diop Fall est ce que juste xaar sax ñu koy ñu koy woo juste moo ko waroon a woo parce que bu mu toog ne man maay laam tooro laam tooro mooy géwélu président nangam nangam am kër almadi boo xam ne kër gën a bakkan la am koy oto yoo xam ne kenn amu ko te muy député simple ak maire ba pare ne encore day dundee courtage fa la jëlee fa la jëlee alal jooju ñoom si solo doon jaay nekk député nekk président CEDEAO di am ay dañ ci neexale mais ana Sénégal yi ana ingénieur yi fi nekk tey dara doxul Sénégal may wax ni Macky Sall na moytu boppam Abdoulaye Wade bi mu nekkee dans l'opposition yaa ngi koy fàttaliku ñoom pare jël nañ député pendant vingt ans mosu ñu liggéey ci administration Idrissa Seck nekkoon ministre du commerce ci jamono nguur Abdou Diouf nekkoon nañ ci dix ans Abdoulaye jël réew mi douze ñii PCA ñii ministre ñii député teral leen ba ten j'ai créé des milliards ñuy ay milliards ñu épingle a war a Abdoulaye tey naan ko tey ji ñu dem élection man maa doon financé campagne am moom Macky Sall Pikine Est j'étais maire ñëpp seede nañ ko ak département wu Pikine ñëpp seede nañ ko jàppale ko mais tey ana mu tey ana 21 pour cent yu àndoon moom bàyyiwu leen ginnaaw ana 41 pour cent yu ko jàppaloon ana ñoom Alioune Badara Cissé ana ñoom Maître Ousmane Seye ana góor yu àndoon moom tey kan la jël Idrissa Seck mi ko doon saaga Fada docteur Souleymane Ndéné Pape Samba Mboup Farba Senghor ñu ko def waajëf ki Moussa Sy ñu ko directeur euh, ñu def ko PCA port 7 millions xam nga 8 millions par mois Banda il a 5 par mois ay Abou Abel Thiam est-ce que loolu rafet na nga bàyyi góor yi nga ante da nga xool da dekkal ngor kon kay moom dafa dekkal ngor par reyaat ngor parce que nag ni mu war a àndal war nañ xalaat xam ne nag dëgg-dëgg nag koo àndal bu dee gor nga même sa jaawar bu nga àndee te amoo dara bu la yàlla may war nga ko ak sa xarit ma gis affaire trahison la baaxul may wax président ne